kër gu mag ñi ngi ci kër gu mag ci kër kër Serigne Touba gi ñu ànd ak ki nga xamante ne nii mooy rek xalif général des Mourides di Serigne Issakha Mbacké war a def nag benn visite guidée ci kër gi. jumaa ji nga xamante ne nii eh, ki nga xamante ne nii mooy Serigne Modou Moustapha moo ko sancoon dafa jullee. jàll ci yeneen kees yeeg barab yi. jàll na ni bërëb bi nga xamante ni lépp luy jumtukaay ak bagage yu sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul moom doon jëfandikoo ñu ànd ceeg sëñ bi xool bagage yooyu loolu lan ak lan moo fa nekk nga xam ne nii ay barkeelu la yoo xam ne bàyyi nañ ko fa sëñ Isaaxa tamit visité na loolu. nee nañ ko tax ci buntu kër gis tey mooy sëriñ bi. parce que lii tam lii euh, moom ñun ñoom mën naa ko def. waaw waaw waaw waaw. waaw waaw pour présenter. waaw waaw dinaa arab. waaw waaw am naa ko waaw. macha allah. Thank you. waaw koy day fay loolu laaj ko xam. loolu laaj ah waaw dëgg la. mooy bañkat. ci ci gaal yi la ci gaal yi ci gaal yi. waaw xam gaal yi moom gudd mbaa waaye bu ne la ci nekk ci la ko bindee naa ko ci ak gis ma ci jotee. waaw. lii yëpp ay bagages ah. biñ paree ci loolu tamit dem nañ xool ci bërëb bi nga xamante ne nii moom la sëriñ Touba Xaadim Rasuul maye woon foto boobu nga xamante ni mooy benn nataal bi nga xamante ni moo am siyaare nañ bërëb boobu. waaw daa daa daa génn dafa fi nga xamante ni Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déenante bi. fala gana si woon ki nga xamante ni mooy xaadim rasuul lu toll ci fukki fan ak juróom loolu ñu jël ko ful ko tey jii moo nekk fukki at ak juróom yi nga xamante ni kii di sëriñ Tuubaa xaadim rasuul moom la def ci njaareem Seyir seyir daal di dugg. Waaw waaw waaw. ci ma ci paree ci loolu tamit danañ xool li nga xamante ni mooy teen yi. yooyu nag nga xam ne sëñ bee ko fa sancoon teen yi ñaari façon la benn bi mu ngi nekk ci booy dugg si ci biir kër gi rek. ci beneen port bi nga xamante ni bunt bi nga xamante ni moo euh, moo jàkkaarloog buntu jumaa ja ba boo duggee teen boobu moom lañ jagleel ñi nga xamante ni mooy góor ñi waaye boo duggaatee ba ci biir kees yi ci ginnaaw jumaa ji nga xamante ni mo jumaa daaru xuddus gi sëñ Modou Moustapha daan jullee sante boo duggee ci teen boobu ba mooy teenu jigéen ñi di xamal nag teen yooyu maanaam secret bu rëy da cee làqu ndaxte teenub góor ñi ku jigéen ko fa taxawaan du gis ndox waaye teenub jigéen ñi tamit góor gu fa taxawaan tamit du gis ndox. te ñu ko def ci culture ñoo ko def ci plan bi. waaw xam nga boo boo suñu ñëwee dañuy baaj ba mu waaw ñooñu waa kër moom mooy seen boobu nga xam ne ñaari bu fi jigéen taxawee moom. bu góor taxawee ndox ma dem. ndox ma góor taxawee doon doon doon dëkk bi. waaw xanaa ñaari teel la mooy bi nga xam ne mooy bu góor ñëpp indi bi jigéen ñi rek. loolu bu góor bu góor ñi mooy mooy mooy ba ci biti. waaw waaw waaw boobu mooy bu ji bi rek ñu wax ne moom moom la. waaw euh, xam nga dafa am jiw boo xam ne nii dañuy day dafa am mat fukki nit ak ñeent ñoo xam ne ñoo ko yor waxtu bi ci waa énu wax nit. moom sëñ sëñ bi waaw. waaw man xam naa si ñaar ñoo xam ne fekk naa kenn ku wax Abdourahmane Diouf hmm? ak suñu wax Mor Fall. waaw lii vraiment ñu ba Massa ñëw néegam. bi bi donc moom daa yenu di ko def ci alal mu tiim ak këy. xam ne bi ñu euh, sant Seex yi ba mu tàggat seen boobu nag. di leen woo ñoom ci kër ñett yooyu. kenn kii. waaw ci ci bunt yu bëri di ko tudd waaw. leen wàcc li ma li ma ca leen wàcc. waaye dañ daay def ñoom juróom-ñaar bu ñu juróom-ñaar yi xëyee Tuubaa ñu daanaka tey jii kon ñu jàpp ne lépp loo xamante nii moo nekk ay kër. wala ay bunt wala ay kees yi nekkoon ci biir kër gu mag gi nga xamante nii maanaam mu ngi nekk ci quartier Médinatoul tax ñuy wax kër gu mag muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul di ki nga xamante ni moo san sanc yoonu murit fa la nekkoon moom la ñuy visité nii ngeen ànd cee nag seen site bi nga xamante ni mooy premier site d'information général bu njaareem di Bawal Times nga xam ne ni boo ci bëggee dugg da nga dem Google nga tàppee www point bawal times point com nga dem ci page d'accueil bi nga cliquer ci nga mën a am xibaar yëpp tamit mën nga ñoo koj fi nga xamante ne nii mooy di YouTube boo demee YouTube boo tàppee Baol Times tamit da nga gis maanaam li nga xamante ni mooy liggéey boobu ndaw yooyu di liggéey buñ fàtte nag abonné ci jër ngeen jëf.